suñu nous bi nak liko waral tay moy dañu bëgg camions yi ak grue ak toutes sortes d'engins yi nga xamantene ne ñëw nañ tek ko fi ci suñu cité dañu bëgg mu fi le plus rapidement possible parce que nak toutes les démarches administratives suivre nañ toutes les voies normales yi nga xamantene dans un pays de droit ñun am loolu lañu yoon may pour ñu def ko mais on a vu que aujourd'hui nos autorités sont dans le dilatoire ils n'ont pas envie de régler ce problème donc problème nag boo boo jooy boo jooytoo fi nga xamante ne foofu nga mën a jooytu te sa problème saafarawul ah nit ñi nee nañ nag wolof njaay mejum kanam borom a fajal boppam donc fu mu toll on est prêt on est prêt lu mu ci luñu lu mu laaj rek ñun dinañ ko dinañ ko ci def désagrément yi ñëpp gis nañ ko déjà xeetu camions yi fii nekk ñëpp c'est des camions citernes yi nga on a on ne peut pas compte tenu de la situation dans cette zone filu haute tension centrale Cap des recevoir tout tous les jours et toutes les nuits des centaines et des centaines de camions c'est la première chose c'est-à-dire on ne peut pas cohabiter avec des camions ñun cité c'est des cités résidentielles qui sont là donc on on ne veut pas et on ne va pas cohabiter avec les camions c'est la première chose la deuxième chose Modi, que mais xool leen tali yi tey jii nii ñun bu ñu bëggee liggéey bu ñu génn suñu mais ku ci sax pour euh, jot croisement tu fais plus d'une heure de temps alors que c'est moins d'un kilomètre ce n'est pas normal il y a du tout il y a prostitution dafa Fandao, il y a du tout toutes sortes de trafic donc ce qu'on dit aujourd'hui c'est que euh, nous avons jële le garage bi waaye du garage malien yi rek moo tax ñuy engins yi fi que ça soit des garages de de de de locaux de citoyens sénégalais nañ ko fi jële nga am fi titre foncier ne te donne pas le droit de dégrader l'environnement de toute toute une communauté donc si ñu mënee un titre foncier bu ñu bëggee ñu ñëw dëkk parce que ñun ay dëkkuwaay lañ fi def Nous ñu mënul nañ ñëw jële fi seen ay camions parce que lii yëpp dafiy jóge notre combat est général notre combat est général. Ce n'est pas seulement contre les Maliens, mais contre toutes sortes d'agressions nous avons